procureur de la république maanaam jëlee nañ ko fa andi ko ñu wax Amady Diouf mi nekkoon chambre d'accusation Ousmane Diagne mi nga xam ne ay jamono nekkoon na fi procureur de la république jamono ji moo nekk procureur général daal fay wuutu ko ñu wax Lansana Diaby yéen a kaay na Omar Maham Diallo jamono ji moo nekk doyen des juges maanaam ginnaaw bi Samba Sall génnee àdduna ba léegi premier cabinet ma ngi a am njiit Omar Maham Diallo lay wuyoo yéen a kaay de yóbbu nañu ko Tamba yéenekaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Macky Sall jamono ji yëngalaan na carte gi ci magistrature bi journal bi nee na cour d'appel bu Kaolack foofee tamit bëri na ay changement yoo xam ne amal nañ ko fa cour d'appel bu Thiès am na njiit lu bees yéenekaay gi di enquête nee na Amady Diouf mi nga xam ne jamono ji nag mooy procureur de la République am na nag ay dossiers yu tàng yoo xam ne ma ngi koy xaar lu si mel ni wàllum trafic passeport diplomatique xam ne tudd nañu ci ñaari député ak lu jëm bi nga xam ne moom la ñuy tudd ci Miss Sénégal yéenekaay gi na tamit Omar Maham Diallo mi nga xam ne mooy doyen des juges moom tim jamono ji ñoo ngi koy xaar mu daal di lijjanti dossier bu tàng bii nga xam ne moo dox diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr yéene kaay gi di réew mi quotidien ci xëlim ak Assane Samb nee na Ousmane Sonko kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko wax na nag du signé charte non violence Samb nee na Ousmane lim si jublu mooy ab bataille politique ndax moom xam na ne su waxee ne du ko signé coow li bëri ba ci Ndiaye Cissé bi nee na yi nga xam ne moom la Ousmane Sonko wax maanaam bu ko jàppee kàddu yu njombe nañu ko jël analyser ko càmbar ko Babacar Ba forum justiciable moom nag ñaawlu na bu baax a baax yi Ousmane Sonko yëkkati collectif ñoo lànk ñoom nag nee nañu musuñoo xaar Ousmane Sonko signé nga xam ne mooy yooyu la charte ba ci journal bi nee na société civile bi dañoo xàjjali ko ci kàddu yi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati na ko yéen kaay gii di laas Kabir Mbodj muy wax jafe-jafe yi nga xam ne am na ko ak benn ancien premier ministre boo xam ne moo def ay lobby def ay maguy ba yàq projet bi nga xam ne wari amoon na ko maanaam jënd li nga xam ne mooy Tigo wari dafa bëggoon a jënd Tigo waaye Kabir Mbodj dina benn ancien premier ministre moo ko yàq yéen a kaay gi di réew mi ko di jee ñu xëy fekk fa ndaw ñi bokk ci benn bokk yaakaar te nekk ci ndakaaroo ñoom nag mere nañu lool ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr ndax nee nañu aw doxalinam dara rafetu ci ndax na dafa écarté ndaw ñi ci liste bu Ndakaaru yéen a kaay gi na jigéen ñi nga xam ne ñoo bokk ci